pour le 1er juin 2023 pour avoir le verdict de la chambre criminelle. d'accord loolu waxuma ko woon ci français. moo tax may jeexalee ko français bi. Mhm. di leen nuyu di leen gërëm. ndax seen taxawaay ware na ni presse dañu ne mooy quatrième pouvoir presse qui bien châtie bien man du ma yambar boo xam ne damay gis sama xarit bu def la bon ma ne pat loolu bëgguma ko kii la bëgg mën naa la sa géer gi na sa doomu ndey mën naa la sa géem bi nga xasara waaye bu dee presse la boo xam da ngaa far da ngay dof da ngay rakkaaju doo nekkati nit kon dama bëgg ñu def ndànk rek bin bi xam ne man li may leen di wax yàgg na depuis deux ans ñu ngi wax taal nañ fi sama kër saaga yi moom day takarnaase fu nekk dëkkal nañ ma fa waaye ma taxaw di dëgër këcc te boobu xam naa li ma yore sama loxo xam naa ne am na man yu bu ma téyee xam naa ni laboratoire bi wax na ko waaye y avait le secret de l' instruction ko woon a wax tey nag mën nañ koo wax ndax lépp leer na tey fi ma xam ne nekkee benn pareegu ma donc dama leen di yëgal ni tey lépp leer na am nañu waxoon ni Mamour Diallo moo jël Adji Sarr ci oto bi yóbbu ko CTO loolu kàcc la tey leer na ne docteur Guèye bi nga xam ne ñëpp xam ne ne Pastef Kolda la moom nee na man suma xarit maître Gabi moo ni ma am na lu xew am na xale bu jigéen boo xam ne dañuy yegg ci moom ma bëggoon comme couvre-feu bi yow docteur nga am nga droit génn doo ko jëli ñu xool ko nga xoolal ko ngir yàlla mu dem jëli ko ànd ak Sidi Ahmed Mbaye mi xam Sweet Beauté fi mu nekk Sidi Ahmed Mbaye yóbbu ko Sweet Beauté xale bi génn ñu yóbbu ko biñ ko yóbbu ca tàng tàng bi docteur Gaye de prélèvement jox ko laboratoire bi nekk CTO ni ko xoolal ma xale bi lan moo nekk ci yaramam ndax am na lu ci nekk ndax dañ koo tëddee walla déet te booba Sonko neewoon na moom xamul xamul Sweet ma soo fa teg sama tànk kaw ma aji saarit far mu effacé ko ci Facebook am du ko bindoon ci page am ñëpp gis ko ba Bassirou Diomaye Faye nee na Sonko mosu fa teg tànkam ba gis ngeen am na ku fi taxawit beneen militant am porte parole nee na jënte na kaamil dóor waaye sama sénégalais yéen nag waaye nit bu fenee da yéen da ngeen toog di rek kenn ku fen benn yoon rek wala su man ñit bu gisee ñuy topp ci kooku di ko gëm bay dee di mu fen fen ba ñëpp teg seen bët man damay jommi jaaxle ci Sénégal may oo sama xale sama jarbaat samay doom yu gën a yeewu presse bi gëm la woon nañ leen man gis naa benn gis naa benn journaliste mu doon génn benn benn certificat médical di ko wane ak benn journaliste boo xam ne émission bi chaque jour mu ne xool leen kii dañ ne dañ ko laalee yàgg na xale bu jigéen bi waaw xale bu jigéen bi dañ ko laal laal ko laalaat ko kon ba mu roode loolu kon boo nee perte na ndawam mooy kenn laalu ko kenn violé ko xamoo dara yow moom nee na dañ ma yàgg laal viol répétitif mooy laal bu amul bu amul jeex waaw yow nga yow nga taw jël PV naa gis ngeen de laal bi kii nekkatul nekkatul xale loolu du problème bi problème mooy ndax yàgg nañ ko tëddee wala déet waa ku tëddee lu yàgg kay xan di nga roode boo roodee kay doo gaañu boo roodee ku yegg ci yow du la gaañ loolu tey moo feeñ tribunal mu ne tëddee dama juróomi yoon joxe bis yëpp ñu ne comme wu rek kon kenn violé wu ko xam nga loolu mooy waxi dof waaye waxi dof bi xam nga bu gën a mooy ki ki kay def testaleen mu bañ yow nga ne defoo dara kii da nga ci moom pour mu leer comme bis bi nga yeggee ci moom ci guddi ga même pas quatre heures de temps ci dégg ngeen ci ñu doon wax lu leen neex naan nee nañ ay ay ay ay bis yu bëri xale bi sayul kenn waxu ko de ko da ngay kàcc tey li fi wax gars yi ne bi mu ñëw ci tàng-tàng bi lan nañ def prélèvement kon xam ne laal nañ ko biñ ko laalee mu ne mu ne ci ngoon ga résultat bi génn résultat laal bi lan la mooy am na lu nekk ci moom lu ñuy wax spermatozoïde vivant mooy man yu boo mu ngi dund ba mën a am doom nee na mu bindal ko pilule du lendemain waaye ñu taxal ji wëy télévision yi émission yi ku gën a riis sa làmmiñ naan waaye certificat médical bi kay la Sonko waaye ñi duñ xalaat seen bàmmeel ñii duñ xalaat seen bàmmeel preuve bi mooy mooy test ADN bi bi mu bañ a def ci man yu buñ ni ah. ci guddi gi jël nañ ko ci yaramu aji kenn kenn la tëddal keroog ci guddi gi dafa tëdd ak moom rek docteur gay jëli ko léegi nag kon dafa yoon ñu yaakaar ne daneen condamné ah Sonko fur fukki at dix ans d'emprisonnement minimum bi mooy dix mooy crime viol dañ ko criminalisé Sonko war nañ ko tëj fukki at procureur loolu wax mais li ñu jaaxal mooy procureur daf ko ba pare xaw a daw res tuuti ginnaaw wax dix muy bëgg xaw ma lu mu bëgg naan am na bu boobu àndul te moom li mu wax dafa leer naaj procureur dafa teg dix ans yi ci lu leer ba pare ëlbatu baa ne bu dul fekkee yow juge bi gisoo ne loolu am na nga wane ne xale la boo xam ne dañ koo jaay doole teg ko dil yegg ci kawam mën mën ko loolu man d'accord ma ci xam nga man bu ko def cinq ans di wàññi waaye seen foo demee prison be am nañu fa am dix ans Sonko moo leen gën lu ñu war a ragalee Sonko lu koy loxo gis nga euh, gis nga Sitor Ndour maa maa ko défendre ñu génne ko man mii maa ko acquitté te dañu waxoon ne am na certificat médical bi ko dugal te certificat médical li wax mooy kenn la kenn laalu xale bu jigéen bi waaye am na ñu dem ci presse partout naan Sitor Ndour am na certificat médical bi ko dugal xoolal nit ñi bëri pire nit ñi trois médecins ñoo ko signé woon Sitor Ndour ak benn professeur agrégé ñu ne xale bi kenn laalu ko ñu gëmloo dañu ni sonn dem prison audio bi séeréer ñu ne audio bi dugal na ko fi mu ne nañ négocier waaw mu ne man defuma dara ci audio bi séeréer la làkk waaye bu dee xaalis ngeen bëgg ñëw leen ma jox leen xaalis ngeen bu leen yàq sama der bi man xale bi jigéen bi du ma ko laal mukk soxlawu ma ko kooku fu mu ne fu mu nee ne fu mu waxee ne man la nit ñi nañu xalaat seen bàmmeel moo tax ma ne si toon dóor a ngi nii ñu toj ko ba bàyyi acquitté ko deful dara Cheikh Yérim Seck ak ñeneen tëj leen fi kaso ci pour viol viol crime la ku ko def dañ lay tëj bu ñu la ko accusé dañ lay tëj mel ni mu Ousmane Sonko rek moom kenn moom dong moom rek lañ fi accusé de viol ñu prélevé sperme CTO ah déposé ko te kenn arrêté ko. ban si ñàkk moom dañ ko faral kon. Ousmane Sonko ni koy dimbalee ni koy jàppalee ëpp na mu taxaw naan dañ koo bañ. Macky Sall la koy xeex te moom dañ koy defal traitement de faveur Sitor Ndour APR la def na neuf mois de prison. plaidé nga sans sans la présence de la de la partie adverse euh, xam nga yow Khalifa Khalifa dama laa bëgg ndax ba ñëpp dawee yow yaa assuré yaag daam jeeg yéen assuré woon ak ak ak waaw ñaar rek la ko ite ak leeral TFM dafa dawoon res keroog ñu bëri dañoo ragal génne affaire aj saar ndax dañoo ragal booy yi ak bandi yi saagakat yi ak reekat yi léegi nag yow xalifa xam nga ni lan nga laajoon léegi encore <laughs> sonn dañoo wax tubaab dafa ni à vaincre sant péril on triomphe sans gloire am na benn poète bu ko wax ñun amuñu lu ñu neex ci côté boobu bu ñu sañoon Ousmane bu Sélé mi taxaw bu yoree bañ a dugub ñu xam bu yorul bañ a dugub ñu xam ñu xam yan argument la am waaye dafa yombaloo nga ne ñëwuma xale yi dee leen sama bundu kër te boo ñëwoon day simple ma laaj la nax la yow yaa def li ndax bis bi yaa ngi won yaa ngi woon Sweet Beauté ndax bi nga demee ndax sa maniwu lañ jël wala jëriñu ko ndax keroog yëg nga ni docteur Gaye bi nga xam ne sa militant la moo jël sa woon euh, Adji Sarr bee boobu xamatoon ni patron moo am séq ak Adji Sarr waar a ngi noonu docteur Guèye bi muy jël si Adji xamul ni patron ci politique moo am problème ak Adji Sarr dañ di am na xale bu yegg ci moom benn xaritam wax ko ko xamul nu mu demee mais mbir yàlla la tey mu ne fekk nañ ma niw ci kaw Adji Sarr loolu la Bara Sarr bi wax waaye kon kay xam nga ne mbir mi leer mbir mi leer te li procureur wax ñun d'accorduñ ci ndax crime dix ans nga war a am ñu bëri am nañ ko fi ñi nekk prison Ousmane Sonko gënu leen ndey gënu leen baay masu leen a gën ñëpp war a yem devant la loi amul ku ñu war a jël ko ci kaw loi bi kon nag tey am nañ mbégte quand même c'est vrai ñëwuñu bu ñu ñëw ñu duma leen duma yéen duma waaye comme daw nañ it moom yu tribunal bi ndax Ousmane ko moo ni man du ma wuy seeti tribunal man justice sénégalaise amatuma affaire ak moom man wuy du ma wuy jeeti justice man faaleetuma justice ay ma saaga magistrat yi kon xam ngeen ni le premier juin maître luy xew magistrat yi le premier juin dinañ wax liñ gis tey xam nga ne plaidé na ñun démocratiquement ku nekk ni ko sentiree ku nekk wax leen xalaat ci dossier bi li ko dalee ci aji Sarr ci Ndeye Khady Ndiaye seen nekkin ca dëkk booba Sweet Beauté xaw ma raay mu neex la xaw nu mu tudd Sweet booba la fa doon am en tout cas sori naag jaamu yàlla la doon am ci kilifa gu bëgg a yore réew sori naag toppatoo njaboot gi jaamu yàlla wane exemple xale xale yi waaye koo xam ne ci débauche nga nekk ci lañ lay atte comme Ndeye Khady ak ki nga xam ne ne yow yaay complice ndax dafa bëggoon raay mbelle loolu yëpp bu amee ah xale yi war nañ yeewu nag ba le premier juin verdict bi génnee jàmm rek am su réew mi bu ko kenn taal démocratie rek avocat bu ne nem xalaatee rek la waaye principal accusé bi amul amul contradiction sonko la mooy ndeyu mi ligi de avocat yëpp ànd nañ ci ni lépp moom la moom la moom la moom la. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Khady Ndiaye lan lañ koy jërëjëf. intéressé ñu soog a jug day eh ana Waly Waly réplique. réplique la la wax. micro bi. yow mii yaa fekk micro bi. nank nank ma ne ngeen ngeen jox ma ma réplique. Eh, dañuy jël Saa Wolof. waaw ah, góor dañuy jël réaction Saa Wolof. nang nang nang Nabu. Nabu yaa ngi jël ah. wuy ma wuy ma xoolal xoolal xoolal micro yi gis nga micro yi. gis naa ko gis naa ko moo tax ma taxaw. pusal pusal. xoolal micro yi mooy eh, micro Nabu. may tuuti. Thank you. non man man moom jur may jàppale yaa caméraman lii day gaañe de lii day gaañe Rose lii rek la Rose moytul lii